kay ñu ànd ceeg Alaaji Ahmed Aidara bismillah président Macky Sall day eh, làq na ngërëmu sëñ bi de maa la ko wax la solo yéene kaa ne Serigne Mountakha Mbacké day Bassirou a eh, daal di lay xamal président de la république ne ko xam ne nag maanaam def nga ko ci diwaanu Touba gi la réalisation yi feeñ na de nit ñi teg nañ ci seen bët de président Macky Sall tamit xamal na jamuju tedd joo da di Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ne ko jàppale bi nga xam ne kon yaa ngi ma koy jàppale de mosu fee jógee déedéet Mbacké na ba président Macky nee na lu jëm nag ci wàllum liggéeyu hôpital niveau 3 bi ko door weeruk mars lay doon fanweeri milliards ak ñetti dee danañu ko ca def tali ba nga xam ne moo jëm tam Mbàkke Kayel Tuuba Mbul ah, dana door bu nawet bi jeexee laa wax tribune yéene kaa ne gis nga waajtaayu màggal googee ah Tuuba wër nañu ndomba ay da jàlloo nag maa ko wax maar day taali maa la ko wax parce que sa ca boppam fi mu nekk nii ne dañ koo fat kon ci biir këram mi ci guddi goo xam ne kon bët sa tagul laa wax impasse la ma nga jàkkaarloog askanu murid de waaw te askanu murid googee ah dañoo fas yéene nag defante kon ak sa laa la wax fas yéene wuñu koo may dara ba dara la wax waxuma la sa comité d'organisation ba de ah waaye daayira yi nag te léegi gendarmerie nationale ca boobu kon dugg na ca biir fecc ma dugg na ca biir gendarme yooyee waaw demoon nañ ca ay Aïda Diallo de ngir xamal ko ne carrément mesure yi nga xam ne kon maanaam moom la ñu jël balaa béy di wéy mbuus coow di fa am yéene kaay déeme jaagi ne réunion boobee nga xam ne amal nañ ko ci kër Aïda Diallo day waaw daanaka am na benn waxtu laa la wax laa ilaaha illallaah léegi kay soxnaw Cheikh Béthio Boun di Aïda Diallo ah moom nag la ñuy xool wan tànk lay fecce waaw tout cas Serigne Saliou Thioune day dana amal nag safaram gi ca jannatul maawa enquête yéene kaay ne daal ay diggee rek la defati kon ca doonu Touba googee source aane gis na président Macky Sall day waaw ak ay diggeem ca Touba ah tàngal ceeb la rek Macky Sall daal lii wax sëñ bi waxoon na ko fa laa la wax laafee <laughs> dëgg la diggéey kay la tàngalaat sur ça ne ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali man kay maa lay wax la nga xam ne Macky Sall waxoon na ko fa ci ay diggéey tàngal ceeb la Macky Sall ci boppam xam le woon na ne danañu fa def nag ab niveau trois fanweeri milliards ak ñaar te deux mille vingt et un loo hôpital ba di pare boobee benn ñaar Macky Sall ci boppam xam le woon na ne hôpitalu Ndaamaatu bi dee danañu ko ko jekkali defaraat ko évidence seen waxandu ko de déet te nag ñoom ñooñee bu ñu daafantaloo corona de déet parce que président Macky Sall barki dee mboo njaay na ci doonu Sine Saloum kay ñu daal di koy gatandu xam ne mardi itali mesure barrière corona gi la ñu jël compte ko ne de en tout cas daal nu muy def nag na plan Marshall nga xam ne moom mooy coordonnateur u aar suñu moomeel ci grand place waaw nee nag jafe-jafe ne kon moom la béykat yi di dund tey waxuñu ko président Macky de déet dama ne la président Macky Macky Sall kon bi a dikk fii ci béykat yi barki dee mboo njaay kay mooy directeur général DER ba dee wax na Pape Amadou Sarr waaw nee na dem nañ ba di ñu attaqué naan ñun ñooy financé opposition bi laa la wax ah, ah, waaw les ko yéen kaay ne en ministre ay ministre woon waaw yekk nañu lu mel ni xamee Ousmane Sonko laa wax parce que ñooñee jàpp gis nga xiifu nguur wala maruk nguur warul laa tax nga koy fawee safara di ko fawee di ko fawee Ousmane Sonko mi le dina mujj daal ay laafam laa la wax ñoom duudu kala de critique yéene kaay ne boole ca Abdoulaye Bibi Balde Innocence Ntap Ndiaye waaw Abdoulaye Balde Moussa Bal Aminata Assome Diatta Aminata Angélique Manga ak Mamadou Lamine Keita critique yéene kaay ne en tout cas colonel Abdourahmane Kawé colonel Kébé waaw man nekkoon ca Idrissa Seck mujj naa dem kon ca Ousmane Sonko Babacar Diop FD ci Vox a gindi Sénégalais seeni baay yàq ci xaalis daal ay enfant gâté critique yéene kaa ne en tout cas maire bu Guédiawaye ba Alioune Sall jiite day waaw bërëb yi nga ne askan waa moom Alioune dana leen jël luwee leen di mardi tali termine yéene kaa ne dëgg la dama ne la conseil municipal ba ca boppam kon suba lay daje ngir stade yooyu daal fi mu nag mooy luwee ay bërëb yoo xam ne askan waa moom lu mel ni état civil bi ak bibliothèque municipale ba bloc scientifique et nekk ca ba ca mairie bu Guédiawaye laa la wax parce que Alioune Sall nee na xaalis amatul problème mu trésorerie lañ am la wax eh waay Samba eh waay laas ne waaye est-ce que Ahmed Aïdara mi nekkul woon ci dëkk moom mi tuumaaloon Alioune Sall ne Aliou ngay jaay mairie ba laas yemu ca ndaxte nee na bis bu conseil municipal bi kon jëlee dogal boobee waaw na day joxe kon esplanade stade Amadou Barry boobee ak Ibrahima Boy ah, Alioune Sall de dana jàkkaarloo ak mécanicien yi nga xam ne da leen di góone fi jëlee waaye dinaa wut fu

d'accord nañu banque islamique mu ne da koy tuddee Serigne Mansour d'accord da koy tuddee Serigne Macky Sall ma nekkoon maire d'accord koy tuddee Iba Der Thiam école Daaru Salaam lan moo tuddee Macky Sall teew Géejawaay am Serigne Bassirou Mbacké Baara am tamit Mamadou Dieng mi nga xam ne daa xeexal Géejawaay ba jóge mu naan tuddee école mag Sall direct news eh! en tout cas président Sall tuddee dañ ko atali ca Guinée Bissau de box sobli waaye Guinée Conakry gi ah seen Vox Populi ne maître Malick Sall ministre de la justice daal di ne jébal Souleymane Teliko conseil supérieur de la magistrature mar di tali sur ça ne UMS kay fi mu nekk nii rek sabar ko tas xeex fii les éco yéene kay ne policiers yi def nañu ab fitna goo xam ne violence bu lan la ci kaw journaliste yi laa wax ay policiers daal ñoo jàpp koon caméra woomanu Dakar ak tubile di Adja Ndiaye yàq am saaga ko te gaañ ko gaañ ko ci loxo aca mbagga ca moom Dakar Actu day nee na nag justice kon def liggéeyam ci lii waaw police tam itam lan moo tax ñuy doore <laughs> waaye nag ak lu ñu doore doore doore doore doore doore ñoom police yi waaw buñ fàtte ne pétrole bi ñoom it dañ cee de parce suul gaz du tere xeeñ te troisième mandat dañ ko tere rek boo paree ma ne la alaaji